publicité. Serigne Cheikh Serigne Cheikh borom jooni jooni jooni. waaw produit bii ngeen di gis moom la ñuy wax yokku awra. yokku awra nag téeméeri nit yoo wàññi senegal juróom-ñeent fukk yi gëmuñu ko. am na ñoo xam ne sax dañuy woote woo xam-xam ci biir Sénégal ba pare ne yokk awra amul. mais képp koo xam ne dangaa taxaw biir senegal ne yokku awra amul ma du ma d'accord ak yow. Mhm. ndax lu waay amul sa waay da koo amul. Mhm. te yàlla suñu borom gàncax yi mu wàccee ci kaw suuf. Mhm. lim ci wàcce lépp maanaam yokk awra moo ci gën a ndaw kon xam nga ne yokk awra lu mën a nekk la produit bi nag képp koo xam ne daa am problème awra bu gàtt nañ may baal ci kàddu yi bu ko jëfandikoo awraam dana yokk ci lu amul sikki sàkk te ku ma ko jox nga utiliser amoo résultat boo ñëwee ma delloo la sa xaalis billaahi boo ñëwee ma delloo la sa xaalis yàlla rek mooy sama seede nga benn garab boo xam ne yaa ngi koy liggéey nga tuddee ko baatu kër gi. waaw baatu kër gi balay loolu baatu kër gi maanaam li tax ñu tuddee ko baatu kër gi histoire la. Mhm. ndax am na ñoo xam ne dan daan ñàkk kàddu seen kër. Mhm. ndax néew doole ci wàllu lal. waaye bi ñu leen joxee garab gii di baatu kër gi ñu ko utiliser waat di amaat baat seen kër. Mhm. loolu waral ñu tuddee ko baatu kër gi. xam nga lii lu leer naan la. fii nag ñu fi joxe garab bare na mais bu ma la joxee garab dama lay wax lu leer naan boo ko utiliser boo amul résultat ñëwal ma delloo la sa xaalis billaahi wallaahi lu leer naan la te bii mooy jooni jooni bi parce que dafa am traitement am jooni jooni mhm. bii ma yor nii nag mooy jooni jooni bi utiliser léegi gis léegi bii mooy indi jooni jooni mooy jooni jooni bi da nga <laughs> léegi gis léegi am na boo xam ne nag defar nañ ko boo xam ne pour traitement complet la ah. mais bii mooy jooni jooni bi utiliser léegi gis léegi te bu ma la ko joxee boo utiliser boo gisul boo ñëwee ma delloo la sa xaalis billaahi wallaahi mhm. te garab gi doo ko utiliser mu lay wàcciloo mhm. wala muy metti sa bop wala muy yëngal sa estomac mhm. febar bo am man nga ko nan te la amal jabet mhm. amal lu la neex boko utiliser wo du la wàññi dara parce que du garab gu wex parce que nit mënoo ko jox garabu katan diko jox garab bo xamne ne da koy ko indi lenen jafe-jafe affaire bi du fofu fi nak ñi fi joxe garab bari mais buma la joxee garab dama lay wax lu leer nan boko utiliser bo amul résultat ñewul ma delo la sa xaliss billahi wallahi billahi wallahi lu leer ñi la lu leer ñi la lu leer ñi la waaw produit bii moom la ñuy wax taaru jigéen taaru jigéen nag bu ñu ko waxee taaral jigéen moo ko tax a jóg produit bi bépp jigéen boo xam ne maanaam da bëgg am form li commencé ci kaw ba ci suuf am na loo xam ne nag du ko tudd parce que dañuy warmal teggin yi mais képp koo xam ne bëgg forme li commencé ci kaw ba ci suuf ak noo ko bëggee boo ko utilisé da nga am forme waa bii mooy sëqal karaw day sëqal karawu góor di sëqal karawu jigéen di sëqal karawu xale di sëqal karawu mag képp koo xamante ne bii sa karaw day ruus wala muy dagg wala sa bopp di am ay weex-weex ci kaw di karaas mhm. boo ko utilisé loolu dana dañ te da nga am karaw gu sëq mhm. résultat bi 15 jours la mhm. boo ko utilisé 15 jours amoo résultat li des ci pot bi may naa la ko ñëwal ma delloo la sa xaalis waaw produit bii ngay gis moom mooy wàññi biir mooy ventre plan mm. képp koo xam ne maanaam biiram dafa rëy mm. muy góor muy jigéen mm. parce que góor bu biiram rëyee mm-hmm. bu bu bu waree sëy raakool yi nga xam ne fi la deret bi war a jaar di war a dem ci awra bi raakool yooyu gerees gi bu yàggee daf koy fàtt moo tax maanaam biir bu rëy bon ci góor moo tax maanaam biir bu rëy bon ci góor moo tax maanaam biir bu rëy bon ci góor publicité Yan. Makod eh. Yang itu. Main itu wah. Hanya anda faham rumah jahal. Bajamu. Anu jalan tengk man lagi yo. Bangin wono sax bu guddé na ñew sa nek mok tok di xaar ba son gisuma la ben yoon. Eh mako do reng wax nga deug de. Bëggoon na ma ñew de waye dama tudd sama bob bi metti. Ma jaaré fofu nelaw. Waye bëggoon na ma ñew de. Hmm. Waye mëna yow ya, ñoo far budonul tay timi nek ëlëk rek tay ñaña dafa am luma jaaxal ciabi ñu mëno laaj kërok lo ko don dewe ciabi ji waaw boo ciabi bi moom su ma sañoon koy tek ci suuf lolu jarul wax lolu dara hmm waaw ciabi bi jarul nekk fii nii di tay bayil non da gasa ba mu xoon nga suuf yow ñoo far ah kon bëggoon wax ci ni non non bu ci wax doo ko déggaat baax na maa jóg yéegi tamit waaw baax na maa ngi fi ba si kanam tey nag xaar nga ñëw waaw waaw xaar ma naa la xaar xaar ma waaw waaleykum salaam. Latir. yaa ngi ci jàmm. ñu sant yàlla. alhamdulilah Dior doxe de. doxe naa naaj kay Latir. waa Poudou. ñaa fa. baa ñoo ngi ci jàmm. ñu sant yàlla bu baax. alhamdulilah.

da ngay ngorowoo ak kodd ba tax nga fat ko ci sa biir kër gi ma ni woon naa ñëw laaj la ko. Dior ana kàddu yooyu kan moo ko mën a génne ci aw làmmiñam giññaa ko ci yàlla ni loolu amul kodd dama ko fat te yàlla rek tax ku ne xam na ne waajuram dafa génne àdduna te moom dong moo fa nekk kër nag. wóoru jigéen dong dafa nekk moo tax ma jëlee ko seen kër gannaaw bi ma ci amee ndigalal samay waajur daal di koy andi fii waaye bàyyi xel ni sama rakk rekk laa ko jàppe moo tax ma andi ko fii du dara lu ma ci séntu nag du ngoro du mbëggeel du cofeel du dara dama ko bëgg rek te yàlla tax ngir def ko sama rakk ndax kat aw ma rakk bu jigéen Codou mooy sama rakk bu jigéen moom ana ay bokam lu tey nga bayiko mu dem ci ay bokam ndax goor ak jigen duñu bokku keur ci ku ku ki nga bokal nday ak bay man nak anduma ci tay anduma ci euleuk xam nga lu tax ma fat ko sama yaay ak yaayam ay xarit lañu woon motax bima ci waxtane ak sama yaay jot ti ndigal lima ci wara jot na sa xel dal bu baax koddu sama xarit la sama rakk la ndax dégg nga ma. dégg naa la Latir waaye na nga bàyyi xel ne lu ma la waxoon laa lay waxaat ànduma ci tey ànduma ci ëllëg maa ngi egg gël. doo xaar ma gunge la. baax na man ngaa toog. yaakaar naam baay fekke yaakaar baay fekke maa ngi lay dégg dama tiit lool jaaxle lool ba tax na ku jàq la te loolu yi lépp boo ko boolee yow mii dong laa ci am yaakaar ngir ma xettil na ma ci lolou lan la bay fekke yaakaar mhm. magum dëkk akuk njabotam ñu ngi may fiir di ma mbopputal di ma kepputal ngir bëgg ma ne katam tàqale sama bopp ak sama baat mhm. bay fekke yow xam nga bu baax ndax waxtaan nañu te magum dëkkit jox na la jur gu bari ngir rekk nga noppi bay fekke naam yaakaar kon soo waxee dañ la war a rey mhm. yaakaar hmm. kenn du am sutura mbalaalum kiiraay mu mag di ko xawel sa bopp dafa am lool buñ ko waxee tam ak dégg waru koo nangu hmm. fii ku fi am sutura ku dul magum dëkk ku fi am teraanga ku dul magum dëkk kóolute googee mu am ci man ba dënk ma ay kàddoom moo tax bàmmeelu biir boobee dara du ko mën a dindi ci man dafa tolloog nag saay saay waxul dëgg waaye yàq nam xel ka jëkk ci noppam dafa mel ne moom la gën a gëm ay waxam ci man mi waaye sama bakkan bii duma la ko tayle moo ku mukk ci caaxaan duma ko ko tayle ciy caaxaan duma ko tayle keneen ciy caaxaan xalaatuma ko dafa toole nag néew doole moom ak tooñ lay masa doon jàppale ma bu baax. bay fekkee. naam yaakaar. ndax mbir ma daa am keneen ku xam lu dul man ak yow ak borom dëkk. fooguma ko nag. wala bu amee itam wul ci man kon wax ji bu génné kan moko wara war dana ma jaaxal lol wante man dal lima bir moy buñu talé ak wat na ca duut ab soy wupp ko bam xong cur buñ mako joxé dina ko né dareet ci sama lam ñu né ko ci daraas macc ko mu sedd guy duma lak bay féké nam yaakar bo noppé rek da nga mucc nuyul ma wa kër ga ah na nga ci japp bu baax de boo ko deful day du ma mucc ndax moom me day du koo xam ne day jàpp mukk ŋànk te daggut te yow rek laa ci yaakaar dégg nga ma. nuyul ma njaboot ga. baax na magum dëkk ku ma déggal la. boo noppee rek da nga mucc. waaye sa bay man kat dama am luma setlu fani da ngay sengem lu rek dafa melni da nga am lula metti ndax man na ko xam dëgg la fan yi amna luma metti lol ndax da am ñag buma ma te ñu ko mu doon lu tenyak metti nyagi yasin te ñag bobu de ñàggi biñ ko ñàggi mën na indi ruur gu metti te bëss bu ma xamé kiko ko dina tagalé bopam ak batam ak kum mëna doon moy lima metti ñag boo ñagoon ñu ñaggi ko ah loolu doy na waar de waaye saa baay loolu bu mu tax nga mel ni nga mel ndax ñun ci yow rek lañuy xool te boo melee nii dañuy jaaxal lool te it duma neex ndax bëgg naa foo toll sa xol bi di feex Nak may am mbekté deug la Ndella yassine sa bu ma daan am luma metti sax bëgguma nga diko tek sey gëtt dama daan doxantu ba ci tokor ba tok fa ab jéego ba samak mer gif ma daal di ndax awma lulul yow nga doon benn ci man ma bëgg la lool ba yamalé wu mala ak lenn waaye ndeela lii dafa fekk ne dama xamut fu ma koy jooytu moo tax mu metti ma lool ma toog ci kër gi ànd ak sa ngéem ndax loolu mën naa xam lan la bu dee mën naa cee def dara ma def ko ci dégg naa li nga wax bu baax am nga yéene ji bu baax a baax waaye bàyyil noonu xëy na dinaa ci xam dara te bés ma ci xamee dara rek di nga ci xam dara sa yéene rafet na jërëjëf. kon maa ngay jóg àgg ci biir. waaw gal egg ci biir. jànq gis naa ne de ko sawar nga ndax bi nga ñëwee ci kër gi de ba léegi lu sa yaay jii daan def nangu nga ci loxoom di ko def te yow man dama laa xàmmeewul ci koñ bi may laaj yow kan mooy say wayjur Sabay. man de ngatte moy sama nday nga. xaritu ndokk yàlla. ngàtte. naan Sabay. ndax xam nga sa baay. déedéet sama baay xaw ma ko de. baax na mën ngaa dellu ca liggéey jërëjëf saa baay